na su yor wàcc na jël na ci suuf attention mbokk yi fas yéene ñëw jukkil leen li nga xamante ne bii moo gën a fas ci euh, ëttu yéenekaay yi bind ci wàllu làmb gannaaw ba ñu leen nuyoo jaajëfal leen amati mbégte bu baax a baax ak contentement ci ànd bi ñuy ànd ak yéen ñu ngi ñaanal bu baax a baax ñi tawat nekk ci biir kër yi wala ñu tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla nañ jóg ci jàmm ak salaam ñu caabi féetee gannaaw yàlla nañ fa génn ñu jiitu ci këru dëgg yi yàlla na leen borom bi yóbbu ci àjjanaam yu kawe ya ñépp ñi caabi fee ñépp ñi nga xamante ne bii dañoo jiitu yàlla leen yàlla yóbbu ci àjjanaam ya képp ka nga xam ne jafe-jafe àdduna mi ngi sa bopp yàlla na ko yàlla saafara borom kër yi amagul xaru tabaski yàlla leen suñu borom may xaru tabaski ayca ci noonu rek la ñuy jaajëfal bu baax a baax waa Iwilisador bi nga xamante ne bii ñoo ñuy gunge suñu revue de la l'arène bi ñu leen di amal fii ci Leewtoo TV saa su ne euh, di leen jaajëfal bu baax ñoom waa Iwilisador ndax andil nañu li nga xamante ne bii moom mooy ay produits yu baax. muy spaghetti di macaroni di li nga xamante ne bii moom mooy ataaya ak vermicelle lépp di Zador lépp di ay produits ya nga xamante ne bii heure boo jëfandikoo rek. xam ne macha allah neex na te am na qualité wante ba léegi dañuy ànd ak eau di ndox mi nga xam ne moo ñuy aar ndox mi prix bi abordable na yomb na ba pare ndox mi set sell neex. oyof neex a jëfandikoo kon daal nañu jàpp ne oo ko mooy ndox mi ñuy aar wante di euh, jaajafal sama jigéen day Mbàkke sama xarit boobu nga xamante ne bii moom laa doon àndal ci Leewtoo TV tey nag xam ngeen ne mi ngi dallu incha allah xam naa suba di ngeen ko gisaat ci li nga xamante ne bii mooy revue de l'arène bi ci noonu la ñuy commencé revue de l'arène l'arène bi tey jii di mardi le 13 juillet 2021 suñu làmb ñëwaat ci face to face bi amoon fële ca. Euh, Euh, TFM gannaaw ba ñaari mbër yi jàkkaarloo fële ca 2STV euh, démb nag ña nga woon fële ca TFM di Télé Futurs Médias démb jàkkaarloo nañu fa ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier ak Balla Gaye Bombardier nee na ko incha allah xam nga ne man du ma ragal aw lu may xof awma lu may ruux ci combat bi te boo taxawee dinaa dox ci sa kaw duma la daan la def la comme ni ma la defaat defoon bu njëkk Balla Gaye ne ko damaa jël si sama revanche te ñaanuma la dara nag. ñaanu ma la dara bëgguma nga may ma yoota lépp la nga xamante ne bii combat bi laaj na ko def naa ko te pare naa ci côté yépp sama revanche dama koy fuqarte ci yow par force Bombardier na ko xam nga ne damaa war a nekkaat roi des arènes te il faut ma defal la bagage jaar ci sa kaw jàll ci leneen incha allah dama lay daan pour nekkaat roi des arènes ci yow mii lay jaar bon Balla Gaye ci li mu ci li mu ko mujjee wax nee na ko man xale laa ba nga xamante ne bii damaa pare ci côté yëpp ba mu gannaaw ba ma jógee INSEPT jóge jóge Paris ñëw fii ci Sénégal damaa pare ci côté yëpp pare naa ci mystique pare naa moralement pare naa mentalement pare naa li nga xamante ne bii moom mooy physiquement te bu arbitre soufflé di nga xam ne lépp dëgg la euh, ba ñu jógee foofu dañuy jàll ci beneen combat ba nga xam ne mooy nekk combat spécial ba di dox ci diggante Forza ak Pakala ñoom ñaar tamit ñu gis ne ñoom ñaar. dañoo dañoo dañoo xiifante ñoom ñaar ku ci nekk da ngaa xiif ki nga xamante ne bii moom mooy sa morom ma pakala ma nga nekk écurie Mbour montagne nee na ki nga xam ne moom mooy forja jàppal ne xale màgg na te expérience bi fi mu toll nii yokk na gën naa màgg ci diggante bi te doole ji tamit yokk na Forza ne ko combat bu njëkk ba na mu demee woon ak bii du bokk ndax combat bu njëkk ba ci une semaine rek laa ko préparé une semaine rek laa def contact loolee tax bi ma jàkkaarloo ak yow li ma waroon a am ci combat bi yépp amuma ko Forza ne ko man damaa nekk xale ba nga xamante ni bii newuma benn benn mag bàyyi naa la ak yàlla ndax combat bi li mu laaj yépp préparer naa ko boo taxawee dinaa la duma boo bëree dinaa la daan loolu moo nar nekk combat spécial bi nar am ci diggante Balla Gaye ak ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier bu nu jógee foofu xam nga ne Papa Sow démb dafa woote woon démb dafa woote woon foofu ca parcelle 100 euh, pour cent parcelle bi yëpp daje woon fa nag ñoom Modou Lo ñoom Franc ñoom Gora Sock champion yi nga xamante ne bii macha allah ñoom ñoo nekk parcelle yëpp ku ne xam na ne digganteem ak Siteu ñaar fukki fan moo ci des ñaar fukki fan moo ci des nee na entraîné naa comme ni ma war a entraîné. ànd naa ak samay mbokk wante Modou Lo ñuy tudd ci combat bi nag Modou Lo nekkul dara ci combat bi parce que Modou lu dugg ci géew bi di bëre man mii nga xamante ne bii man maay ndeyi mbill ji maay dugg ci géew bi jàkkaarloog jëflante ak moom ba léegi Papa li mu yëkkati ci ay kàddu ku ne xam ne ne face à bu mujj bi mu def ak Siteu dafa waatoon nee na nag bi ma waatee appel yi jóge na fu nekk woowee nañ ma fu nekk ne ma waroo woon a waat ci li nga xamante ne bii moom mooy signature bi ba tax na mi ngi jégglu xaritam yeeg mbokkam yeeg am di jàmmam yépp yi nga xamante ne bii ñoo koy ñoo koy bégee nee na mi leen di jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax nee na nag euh, sama combat ak Siteu ku ne xam na ne du yomb komba bu metti lay doon te ñun dañoo nekk ci dynamique ba nga xam ne dynamique victoire la gannaaw ba bébé bis mi ubbee baal bi man maa ci war a topp ñëw defal Siteu bagage daan ko jël bu rëy ba nga xamante ni bii jël bu amul benn werante lay doon ba ñu jógee foofa nit ñu dem ci jàppandal production nga xam ne Kaolack la ñu nekk di structure ba nga xamante ne bii macha allah yàggu la juddu mais mi ngi taxawal ay làmb yu neex foofu ci Kaolack mi ngi taxawal ay làmb yu mag incha allah saison 2021 2022 nag la ñuy commencé ñoom li nga xamante ne bii mooy seen ay programme ñu taxawal combat bi nga xam ne moom mooy dox ci diggante Gambien ak Siteu bu euh, Kaolack. di combat ba nga xam ne mën nañ wax ne mag la ak xale parce que Gambien moo jiitu Siteu ci làmb moo ko ëpp expérience ci làmb wante Siteu tamit xale la ba nga xam ne macha allah foofa ca Kaolack ndàngaan kenn mënul tudd làmb te doo ko ca boole wante eh, ki nga xamante ne bii moom mooy Vieux Sakho di président jàppandal production yemul foofu ndax moom nee na li mu bëgg mooy chaque jour rek. muy tëggal amateur yi nekk foofu ci Kaolack ndangaan ay combat yu neex ba tax na dina tëgg ndandi faal ak ki nga xamante ne bii mooy plaqué ñoom ñaar nee na combat boobu tamit taxawal na ko incha allah mu fas yéene am ci saison deux mille vingt vingt et bi deux mille vingt deux foofu ci Kaolack ndangaan kon daal mën na wax ne jàppandal production. ma ngay dundal làmb foofu ci Kaolack ndàngaan ñu koy jaajëfal bu baax a baax gannaaw ba ñu jógee foofu nag ñu seeti caat gannaaw ba mu daanee mot ja jël bu rëy suñu làmb sekk ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu suñu làmb ba mu ba ñu waxtaanee ak caat nee nañ ko sa kombaar bi euh, nga bëree ak caat euh, mën nga ñu cee ñëwalaat mu ne li ma ciy ñëwaatee rek mooy mojja fu mu mësaa taxaw danaan caat damay dox ci kawam dama koy duma dama koy daan te ku nekk xam na ne loolu amul ci combat bi mojja fu mu tege ko teg naa fu mu dóoree remis naa mayuma ko dara dominé wu ma benn yoon ci xeex bi te it wan naa ko ne maa la mën maa la ëpp doole maa la dàq bëre maa la jiitu ci làmb ñu naaj ko nag léegi fan nga jëm ana sa yoon ana say adversaire mu joxoñ ki nga xamante ne bii mooy Moussa Ndoye joxor bi ko ci biir bët ne ko ñëwal ñu bëre ñu ne ko ñu ne déet foofu la yem mu ne Sa Thiès na ñëw ñu bëre ñu ne déet waay mu ne Garga na ñëw ñu bëre ñu ne déet waay mu ne Malick ñaa mi nga xamante ne bii moom moo indi woon Modou Dia barku démb moo andi woon Modou Dia bu yoof ma daan Modou ja moom moomu tamit war naa ñëw ñu bëri kon daal moom tudd na ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy ay adversaire am moom Thiat Bombardier ba ñu jógee foofu nag ñu tiis dalati ci li nga xamante ne bii moom mooy axlu làmb suñu papa assurance Malick Diop ku nekk day gën a turam ci wàllu làmb moo génn àdduna keroog dimanche. ñu denc ko ci armeelu Yoff ñu koy ñaanal bu baax a baax suñu borom yërëm ko te jéggal ko euh, suñu làmb nag ñëwaat ci waxtaan bu yàgg bu mu sekkoon ak suñu papa euh, bi nga xamante ne bii moom mooy assurance Malick Diop euh, moom mu ngi nekkoon ci làmb vers les années 1954 ba 1975 def carrière bu mucc ayib nag def cinquante combats am ci li nga xamante ne bii mooy 144 victoire am trois défaites am trois matchs nuls macha allah mu nekk mu nekk palmarès ba nga xamante ne bii palmarès bu la suñu papa euh, assurance Malick Diop ñu delluwaat di ko ñaanal suñu borom yërëm ko te yóbbu ko ci arjanaam ya gën a kawe gannaaw ba mu génnee àdduna dimanche passé ñu denc ko foofu ci armeel yi nga xamante ne bii moo nekk ci yoof bu jógee foofu nag dañuy dem ci Thierno Gueye moom mi nga xamante ne bii moom moo yor xarfu xurfa yépp yi aju ci Balla Gaye ku ne xam ne ne Thierno Gueye lépp luy xarfa xurfa wala lépp luy gàllaaj wala lépp luy mystique loo ci mën a wax rek benn la Thierno Gueye mii moom moo ko yor ci euh, Balla Gaye suñu làmb nag dafa def ab ab ab gëstu nee na Balla Gaye avant muy dem INSEP ca France nemmeeku ñu nemmeeku ñu woon benn benn wàllu mystique ci moom mais gannaaw ba mu jógee INSEP fële ca 2STV la ñëw. di amal li nga xamante ne bii moom mooy jàkkaarloo ak Bombardier face to face foofu nag gis nañ ne Arsenal yëpp génn na gis nañ ne équipe bi équipe équipe mystique bi complet na ndax gis nañ ki nga xamante ne bii moom mooy Thierno Gueye ñëw na andi ay bagages yu bari gis nañ ki nga xamante ne bii moom mooy Badra wante gis nañ ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Buuju gis nañ ki nga xamante ne bii moom mooy Sa ak yeneen ndaanaan yi nga xam ne dañuy topp Balla Gaye ci wàllu mystique bokk na ci. gaayen boobu nga xamante ne bi day kagalowu day muuru day muuru nga xam ne bët yi rek ngay gis ak bakkan bi ak gémmiñ gi mais doo doo ko mën a identifier doo xam moom kan la ñoom ñëpp ñëw nañ ci ki nga xam ñëw ñëw nañ ci face à face bi amoon foofu ci 2STV euh, àndoon ak ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye kon daal ñu mën a jàpp le 31 juillet mystiku Balla Gaye bi yépp bi ñu doon gis ci kombaam yépp dinañ ko gisaat ci kombaam bii nga xamante ne bii moom mooy dox ci digganteem ak Bombardier ba ñu jógee foofu ñu seeti Jacob Balde Jacob Balde nag sët la ci euh, suñu papa Falaay Balde suñu làmb rubrique boobu muy def euh, chaque semaine tudde ko rubrique Leewtoo daf ko cee dalal sekk ak moom ay waxtaan waxtaan bu yaatu posé ko ay question mu tontu ci ñu mën cee jukke ñaari question rek wala ñett ñu laaj ko li nga xamante ne bii moom mooy sa defoo ci Jacob Balde lan mooy sa defoo mu ne man sama première défaut mooy damaa gaaw a mer mais nag su ma meree du ma jàpp su ma meree du yàgg tuuti ma ma giif nee na daal defoom dëgg-dëgg moom mooy moom moo di gaaw a mer ñu laaj ko ba léegi euh, kan mooy sa idole ci làmb ji mu a Balla Gaye numéro 2 moom mooy sama idole mooy sama lutteur préféré Jacob Balde moo yëkkati yooyu léeg kàddu ci li nga xamante ne bii moom mooy journal bi ñu ne ko ba léegi ci journal bi ñu laaj ko ban façon nit nga nga mënta àndal lan nga gën a bañ ci sa àdduna mu ne nit ka nga xamante ne bii dafa may wor nit ka nga xam ne day wor nit ka nga xam ne loo sekk ak moom mu mu mu mu rusloo la nee na nit ku mel noonu daal bëggul di ànd ak moom Jacob Balde moo yëkkati kàddu yooyu la ci eh, suñu làmb bu ñu jógee suñu làmb nag dañuy dem les arènes nga xamante ne bii suñu naataango boobu de Abou Ndour moo fa nekk di liggéey liggéey bu mucc ayib Abou Ndour dafa ñëwaat ci face to ba amoon. foofu ca 2STV wala ca TFM diggante Balla Gaye ak Bombardier mu ne chaque jour dañuy gis rek ki nga xamante ne bii moom mooy ancien roi des arènes bi ni ñu koy tudd ci face to face bàyyil Yékini mi ngay tudd ci suñu diggante ndax moom def na li muy def bëre na bëre na ba pare bàyyee na bëre bëre na ak man daan naa ko dem na toog yow yaa ci des yow laa war a bëreel li ñuy wax ñun ñaar la concerné bàyyi yëkk ni mu ngay tudd ci suñu diggante mel ni da ngay daw di làqatu ci moom te loolu amul benn njëriñ arbitre bu soufflé ba génn suñu diggante bu ñu tëjee barrière yi man ak yow kese ñoo fay nekk euh, ki nga xam ne moom mooy Bombardier ne ko yëkk ni sama doomu ndey la sama xarit la te it dañu bokk ay projet loolu moom moo tax loolu moom moo tax Euh, ñu nga koy dégg ci li nga xamante ne bii moom mooy face to face mais nekkul ne damay làqatu ci moom wala may daw di tafu ci moom man ku ma xam xam ne du ma ragal te it ku ma xam xam ne combat bi li mu laaj yëpp dinaa ko ci def te incha allah yow Balla Gaye du la may yootaa ci combat bi. ki nga xam ne moom mooy euh, Bombardier moo yëkkate yooyu la kàddu ci euh, les arènes nga xam ne abu ndóor moom moo fa nekk di liggéey liggéey bu mucc ayib mbokk yi loolu moo nekkoon li nga xamante ne bii moo gënoon a fës. ci ëttu yéenekaay yi bind ci wàllu làmb Mbaye Babacar moo leen ko doon euh, andil fii ci Leewtoo TV di leen jaajëfal yéen ñi ñu doon topp ci Leewtoo TV di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen yoon jàggeen jëf ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na